ah bin xamee ne ñun ay citoyen lan te gis nañ suñu sëriñ wannu yoon di xeex feebar bi yëkkati alalam jox état loolu moo tax tey ñu dajale woon suñu kees débale ko ci 11 millions ñu woon dañuy ñëw jaar ko si ndawal état bi ndax sous préfet mënu gën a jege mu orga yóbbu nu si préfet boole noog moom tey ñu war koo jox don bi mu toll si 5 millions sec liquide bu war a dem si xaalis liquide bu war a weer si trésor ak 15 tonnes 300 sacs de euh, riz ak saabu El Médar saabu bi El bi ñu ngi xalaatoon mu dem xitma si jumaa ji ndax comme ay taalibe lañ te gis nañ foofu mbooloo mi dafay dem lépp daal ñu ngi ko jagleel xeex Covid 19 bi di wuy président ci appel bi mu woote comme citoyen yi di ko xamal ne ñoo ngi ci ginnaawam lii ab tàmbali la bu ñu def waaye dafiy am solo yàlla ndax ñu ngi ci acteur bi di liggéey te gis nañ tam fi mu féete kon ñu ngi ci ginnaawam. askan wi di leen mobiliser bépp citoyen sénégalais. comme gis nañ tawat ji di ko dégg si télé yeeg rajo yi ni mu demee di faagaagal lu bari si bitim réew ñu ñaan yàlla ba du ak si ñun naam dugg na si ñun waaye nag xëy na ñaar ñi mu jot a gën a seen bakkan ñaan yàlla yërëm leen taxaale na jëna di jaale seenu njaboot di ñaan itam ñu tëdd suñu borom yëkkati leen fagaru daal ndax fagaru lislaam moo ko diglee kon ñu fas yéene développé suñu alal roy sëñ bi di woo bépp commerçant bu nekk ci dëkk bi ak bépp secteur boo féete nga ñëw jàppale président si xeex Covid 19 yi. waaw liggéey bi taxaw si euh, côté yëpp depuis deux semaines yi daanaka feeñ na suñu doxin waaye nag ñun danoo nekk si euh, patrimoine jàmbur donte réew mi yilif euh, lépp loo xam ne suñu àq si nit yaakaar naa bu defee loi ba pare seen naakaas devoir am xëy na ñoo ngi si yoon wi président wax na ko missage nation ñëpp dégg ah ñi yor wàll woowu xëy na bu ñu demee ba xam nu baa ñu dégg nu dana dox bu lii jàllee jóg si lu suñu watañ jël ko waaw soxla nañ si kunu jàpp leen ndax bi mu recevoir si koor gële moom président li ñu ko waxoon mooy kunu suñu koom-koom la suñu métier ban jóge si informel bi ne doon formel loolu bokkoon na si xëy na nag ay chef d'entreprise yu bari lan moment bii depuis un an ñu ngi ni tekk mais nekkoon ci defarwaat waaye fi mu ne ñu ngi ci euh, activité bi baax a baax fii xam nga suñu borom moom moo baaxee noonu euh, mbooloo mu ne neex naa lijjanti ba mu des ay doomu aadama am doom adam mom ñoo mel non te rëng-rëng fu lay am ni mi amé ci parti opposition et politique bi gis nga fi ñu yaakaar réew mi tay ñepp and xam opposition amul pouvoir ñepp ngi xex covid 19 ñoo tam ci lan consulté suñu bir xëccat ma ma and ak ñom di xex suñu paré nak am nañ élection de mandat ci kanam don présenté wu ku yalla suñu borom dogal nga posé candidat amoon na jafé jafé mom comme ni ko ñëpp amee nag du arab dong <laughs> donc mi ngi melni ko donc Euh, jàngoro bi di Covid ñun mom ay deug la ay ay ay lañu dañ koy xex ci ak ci zahin lolu may tawfiq tamit ñu ngi nu donc c'est un exemple un bon exemple ay doomu Touba ngeen ay talibé ngeen te nee dëkk ci dëkk bi tekki fi dara exemple bu donc betul

ñëpp yàlla nañ yàlla jàppale mu sekkil ñu boobu jàngoro bi nga xam ne bi tey jii euh, dafa mel ni ko dafa arrêté àdduna bi dafa taxaw koom-koom yi taxaw nañu yéen ay opérateur yi gis nga lépp ngay taxaw avion dematu nit yi demututu léegi sax gis nga mesures yi ñu jël déjà si diwaan yi léegi kenn mënutul dem mi ngi mel ni que presque ku nekk diwaan bu nga nekk dañ la ne nanga fa toog nañ fa toog ndaxte li tax ñu wax loolu ndax dafa am ay cas de contamination yi nga xam ne bi moom moo moom la ñu war a moytu moy contam contact communautaire. dons yi mom ñi gaay di andi yëpp ñun dañ koy jox directement population bi parce que xam nga Touba dafa bare ñu néew doole ñu bare dañuy ñëw bëss bu nek dañuy ñëw temps yëpp dañuy ñëw mais mané len dara amu fi dara bu yalla andé rek ma jox len man lima am yéen la kay jox. wax deug yalla bon critère yi aussi euh, da fay am ñi nga xam dañuy ñëw nek ben kuréel. comme ay étudiants yu jógee fële di xeex kii am na ay association am na ay bàjjenu gox am na ñi nga xamee ni bi dañ ne di dote day am na ñi nga xamee ni bi mais borom kër buy ñëw la wala soxna bu ñëw bu ko defee moom it ñu jox ko gis ngeen looy ñu ñu ñu séddale leen si ñoom ñu am si. waaw ah politique kay moom nag wax dëgg yàlla moom ñu fi nag. wax dëgg duñu ay politiciens. man du ay carte ñoo ma andi fi. d'accord merci